Barbers are among the most skilled and dedicated professionals, yet they are often undervalued by society. Despite the challenging economic, barbers continue to strive with people traveling from far and wide to receive their service. However, society often views barbers as failures even though they make significant profits in a challenging economic compared to those in conventional jobs. Kirfatu spoke to Lamin Jami, a successful barber, to learn about his motivations, accomplishments, and challenges. liggéey bi nag dama ko yàggoon a bëgga waaw since mo maa dem school man suma school soriwut mën naa wax ne primary six la am danso waaw waaye in those days dama doon kotantu waaye mën na wax koom la before machine so ma nekka si nekka si nekka si nekka alhamdulillah ba ma ñëw am suma salon yi boppa Sibir bir lolu tamit amna xalé xale yu bëri yoo xam la ma ngi len jangal te ñi ngi ibi sen salon understand nga fuma ma sax xalé ñu ñëwaanguñ fi place yi nga num touté ni sax place bi rëyut waye di nga gis ñun four people ñofi fi nekk including aprante ñu dé balé fi ni so di nga gis ne foog ñu jappalanté wa amna lo loo ya nga ko uti ci biti mën nga ko fee am wa lepp dafa dess sa iman bi rek dafa dess sa iman man di wax rabbil alamin man di dundal suma eh suma di dundal suma borom mi bu Despite the challenges of running a business in the Gambia, Lamin's determinations, dedication, and consistency have earned him a loyal customer base. However, his greatest obstacle remains a lack of support. Yeah, early 90s, maa ngi si baabin tey. waaye bourse bi fii bu ma fi ñëwee ak léegi boobu year 2010 la waaw maa ngi fii since soo di nga gis ne ñu bëri xam nañ ma fii tamit ñu bëri xam nañ ne soo ne rek wala ñu bëri xam nañ ma fi waaw di ko santee borom bi daal waaw tam maa ngi séntu tam place bu jënaa yaatu bi ndax ma mun a employé xam nga Gambien youth si macha allah xam nga koo jàngal ba mu ibi salon bi boppam kooku fu mu ne nii war naa alhamdulillah tey tey booy mënoon lañ naa bay ñu nekka si njàmba yi nekk si taay yi nekk si drogue yi xam nga waaye foog ñu jàppale leen foog ñu jàppale leen ñu ñoo leen war a jàppale bu ñu seet si seen apparence ñu mel da nga leen naa jël xam nga naxanteeg ñoom su ko defee ñoom tam ñu mën a train liggéey bi su ko defee ñu ibi seen salon yi boppa ñoom tam dinañ am ñoo xam ne lañ leen employé soo nii la te lu ngeen def nii lu baax la because tey góor bu rafet boo gis solo ba mu rafet soo xoolee code bi rek li nga xam ne ne baaba yi ñoo si jaar dañ di am ay wante nag waaye xam nga rek comme yéen loo leen def nii tamit ngeen dooleel ñu xam nga baaba itam nit nañu ku leen naa dooleel ku leen naa jàppale xam nga because ñu ngi def suñu effort as a Gambian youth so loolu la rek pour jàppale ñu rek looloo si nekk xam nga réew bi mun a dem kanam muy man muy keneen muy keneen muy keneen kenn xamut so loolu daal la laay ñaan nguur gi daal nu ñoo mun a jàppalee daal His dream is to open a bigger place where he can employ and empower more Gambian youth to venture into the barbing trade. ñàkk si liggéey ñi comme tey rek nu ma ko waxee eh, price bu ñu dee def si barbing salon bi sax am na ñoo xam ne ne ñëpp dañ ko dee mën a fay waaye xam nga rek ku nekk ak problème yi am la ñi ñi yemuñ tamit understand nga so si jafe-jafe bi mooy. ma fi amee ay xale yoo xam ne ne macha allah ñu ngi liggéey ak man waaw su ma loxo jotut suma gannaaw nag waaye di koo santee borom bi rek di koo sante borom bi bu baax a baax waaw soo loolu tam suma benn jafe-jafe la fii nii waaw di ko santee yàlla bu baax a baax waaw second li tam mooy rek mooy eh, place bi waaw place bi tam maa ngi ko bëgg a renouveler soo xoolee sax maa ngi start sax waaw di ko defar ndànka ndànka so yombul xam nga ma ne ko easy wu doo dee mën a wax lépp waaye di ko sante borom bi rek waaw di ko sante borom bi baax a baax Although Babin offers many benefits, many Gambian youth prefer conventional jobs or use the back way to travel. Lamin went on to advise the youth to learn skills to boost their self-confidence. Ah, man lu ma wax youth si rek lu ñu uti si biti mu ngi fii lu ñu utisibiti ñu ngi fii na gaay traay comme noo ko waxee nii dëgg la because gambien yi ñuy yëngu si salon yi bëriwut xam nga soo xoolee fii su dee hundred la daal xëj na ninety percent bi wala eighty percent bi yëpp forinay la ni ma ko mën a waxee waaw gambien yi bu ñu commencé di dugg si salon nag yaagut noonu nu ma ko gisee because yàgg naa si cotine am na ñoo xam ne ne moom yàgg nañ si bu baax a baax waaw so dañ jàppee ne baabin daal xam nga du liggéey te baabin bi fii foo dem si wool bi foo dem si àdduna bi soo mënee kot li nga gis njëriñ yi baabin because man expérience naa si lu ndaw ndaw soo lu ma ñaan eh, yut si Gambien yi tamit nañ am si li ñuy yëngu xam nga muy baabin bi muy kapinta bi muy maçon bi sax xam nga lu si munti doon daal na nga am fu ngaa jàppande ko because soo xoolee dem baag wee bi xaalis boo spend mën nga ko fee invest nga starté ko nga xool xam nga soo xoolee tey soo xoolee wàllum poultry bi tey macha allah alhamdulilah Gambie ni bëri ñu ngi see yëngatu te gis nañu seen njëriñ soo xam nga soo xoolee sa yaay wala sa waajur yi nga soonal leen ñeneen yi jaay seen laan xam nga doo dee xam ñeneen ñu dencoon yëpp ñu génnee ko pour jox la ko nga dem baaguyee at di nga ñoo dem nga gis loo xam ne ne mooy loolu nga ne ah su ma yëgoon fekk passé na soo lu nekk xam nga danga koo staatee sa kër waaw dañ ne charity begins at home so lu nekk da nga ko war a staatee sa kër understand nga soo génnee nga gis njëriñam waaye baabin sista diga dégg dégg dégg dégg baabin non xaalis mu ngi fa su dee mun nga ko su dee mun nga sa liggéey xaalis a ngi fa. When young people like Lamin are empowered, they benefits in many ways. They become more connected to their community and feel part of a larger vision. these strengthens their resilience and builds their self-confidence. Reporting for Kerfatu. ayam ramachlajawo